mbokk yi alhamdulillah ñu ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala di ko ñaan mu julli ci yonentam ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di wéy ak yéen ci suñu téere bi di risaala bu ibn abi zayd alqayrawani rahimahullah ñu ngi nekkoon ci ñaar fukkeelu bunt bi ak juróom mooy baabun fi zakat al ayn wal xars ñu jëloon ca ay bind ba yegg si tey war a jël li ñuy tuddee wala zakata fi al urud xatta takuna li tijara su dee yaa ngi yor samaru daani bi yaa ngi ci page 329 nga xool ci ligne ba mujj ba wala zakata fi al urud xatta takuna li tijara bu dee da nga yor traduction bi am na ci page 51 mi ngi noonu ak beneen bi mooy 130 loolu kon mbokk bu dee gis nañ suñu bind bunt bi bokk na lu ñuy jëkk a wax rek zakat bokk na ci jaamu yàlla yi nga xam ne lu néew ci doomu aadama yi ñoom ñoo koy def rawatina suñ jamono tey jii bi nit ñi génnee ci mbay mi di jëfante ci wàllu xaalis waaye jullit lépp lu boroomam digle da koo war a xam xam googu dana la yóbbu ci boo ko mënee nga def ko walla boog nga yéene ni lii nga xam bis boo mënee danga ko def wala nga layi ci biir sa mbokkum jullit boo xam ne kat yënge ne kii war naa génne zakat te moom xamul loolu nga laayi ko ci biir su ko defee bu ñuy jël suñu bind bu jëkk dafay wax ni wala zakata fil urudi zakat day du war ci marchandise yi ñuy jaay xatta takuna li tijaara xanaa lu dul marchandise ma danga koo jublu jaay ko fa ida bitaha bada xawl su dee jaay nga ko gannaaw at fa aksara wala lu ëpp at min yowmi axalta samanaha te bis ba nga xamee ne jël nga njëgam nga aw zakaytahu wala nga génne ci zakaatam ba fa fi samaniha zakatu lil xawli waahid dana war ca njëgam nga zakat ngiree benn at kese aqaamat qabla al bayi xawlan aw aksar na doon dafa sax jiitu nga koy jaay at wala lu ëpp at إلا أن تكون مديرا لا يستقير بيدك عين ولا عرض xanaa lu dul loo xam ne day wër du sax sa loxo la nga xam ne moom mooy monnaie ba xaalis ba wala marchandise ma fa innaka tuqawimu urudaka kulla amin su dee sa commerce ba noonu la demee day kon marchandise mi yépp da nga koy évaluer at bu nekk wa tuzakki zalika maa maa ma bi yadika min al ayn gannaaw ba nga génneel ko azaka ak la nga xam ne moo nekk ci moom ci la nga xam ne mooy mone ba nga yor wa xawlu ribxil maal la nga xam ne mooy atum bénéfice ba jóge ci alal alal ja xawlu aslihi mooy atum cosaan ba mu jóge kese wa kadalika xawlu nasli al anam loolu la ñuy wax ci atum la cosaanoo ca jurga xawlul umahat mooy atum la nga xam ne mooy seeni yaay yi leen jur waaw mbokk kon day wax fii rek ne doomu aadama yi li ñuy mën a jël di ko jaayante zakat du ca war lu dul danga caa jublu jaay ko masalan tey jii nit mën na am stocké une tonne ceeb këram lan la ci jublu mooy dundam ak dund njabootam nit ki boo demee ci kër gi yëre yi ba- yu dul jeex ñi ngi foofu ak lépp loo xame ni nii islam dane lii mënees na koo jëfandikoo tànk jubluwoo ko jaay ko loolee kenn du ko tuddee urudu tijaara amma bu dee masala bi mu jëkk a wax fii loolu mi ngi wax li ñuy tuddee muxtakir alal joo xam ni nekk ñuy proposé ko nii ci ku am njëg jënd ko waaye lu ñuy jaay la waaye nag yaa ngi ko denc pour xaar kañ la marché bi di neex pour nga génne ko jaay ko bépp bagage boo xam ne da nga koo denc di xaar marché bi neex pour nga génne ko jaay ko donte ni ni islaam du rafetlu loolu ci wàllu lekk lu dul ni fekk ni lekk gaa ngi doy ci la nga xamee ne mooy marché bi waaye bu dul looloo jullit warul jublu rek dajale alal denc ngiree ne marché bi prix bi yéeg ci boppam ngiree yow nga mën a jaay nit ñi lu cher amma nag bu dee loolu du sa jubluwaay marché bi mar bagage yaa ngi fi nga gis ne su ma dencee lii kat masalan ba tabaski gi ñëw wala ba feet sàngam ñëw su boobaa islam du la wax ci loolu dara loolu nag la Malik di wax ci mazhab Malik mooy bu dee ni daf da nga koo denc di jaay dara loolu kër laag oto laag lépp lu mën a doon loo denc di ko jaay tant que jaayuloo ko zakat du war ca loolee même bu nekkoon ci yow ñetti at ñeenti at mu safaanoo nag ak ki nga xam ne moom daa teg ay marchandises am di jaay daa teg ay marchandises am di jaay nga xam ne ku ñëw léegi mu jaay la ku ñëw léegi mu jaay la su boobaa moom da ngay gis at bu nekk dafa war a évaluer li mu am ci marchandise évaluer li mu am ci xaalis boole lépp génne ko zakat benn yoon loolu yi kon la mazhab malik ñoom teqalee ci ñaari marchandise yi bi ngay proposé di ko jaay comme borom bitig bi tey di nekk ci bitig bi yëpp da koy jaay wala borom magasin bu ibdu sànnaga la fa nekk da koy jaay bokkul ak la nga xam ne moom da ko stocké denc ko di di xalaat prix bu prix bu neex bu dee mazhab malik dañ naan loolu zakat baa nga cay war bis boo ko jaayee doonte ne ku ko jëfandikoo kenn du la wax dara waaye nag la ëpp ci borom xam-xam yi ñoom dañ na déedéet maadaama jënd nga ko pour jaay ko na doon denc nga ko dencoo ko chaque année lépp nga war a évaluer génne ko zakat mais mazhab Malik ñoom ñoo wax li nga xam ne moom la leen jëkk a wax sànq loolu it kon lim ne da ngay évaluer li ngay jaay kon la ngay jaayee bokku ci masalan tey borom bitig bi tey bu génne zakat la nga xam ne jaayu ko bokku ci frigo baag balance yaag yeneen yi muy jëfandikoo yépp loolu bokkul ci li mu war a génne zakat bi mu waxee lii ba pare nag la lay wax ci ne su dee ne da nga nekk ci commerce bénéfice am ci commerce bi cosaanu alal ji masalan un million la woon denc jaay nga jaay nga ba mu am un an nga xool am nga un million cinq cent mille un million bi moom daaw mi ngi fi woon cinq cent mille yi nag cent mille bi quatre mois ci gannaaw la ñëw deux cent mille bi deux mois ci gannaaw la ñëw mën na am sax cent mille bu mujj bi démb nga ko jot bénéfice waaye boo boobaa bénéfice boobu day toppi ca saanu alal jëm génne lépp ngay évaluer génne ko zakat loolu la ñuy wax ci jur ji masalan waa ji nga xam ne dafa amoon fukki xar fukki xar la amoon ci weer bi di leen yar di leen yar ba déwén mat na un an léegi mu xool xar yi mat na ñeen fukki xar su boobaa dañ naan ko zakkaat war na ci yow même bu dee am na yoo xam ne ñu ngi judd huit mois sept mois deux mois am na boo xam ne sax démb la judd waaye maadaama évaluer nga ba mat quarante lay doomi jur ga day toppi seeni yaay lépp ngay boole génne zakat loolu mbokk moo aju ci masala boobu nga xam ni moom la ñu jëkk a jàng mi ngi noonu donte ne bala ñuy gën a continuer xam nañ ni yii léeg-léeg dafay xaw a am ja ay jafe comprendre ku dee am na ci laaj bi ci nit di laaj ñu kii ko bala ñuy jël beneen bind bi naam bismillah waaleykum salaam naam waaw waaw kooku nga xam ni dafa jëndoon gerteem gerte googee mu am fu mu ko stocké di xaar bis bu prix bi neexee mu jaay ko kooku la ñuy tuddee muxtakir ki jënd di denc ku mel noonu da ngay gis ne tey bu fekkoon denc na ko même lu mat at jaayu ko denc ko deux ans jaayu ko trois ans jaayu ko mazam malik ñoom dañ naan zakkaat waru ca tànk jaayu ko su ko jaayi ni doog a génne zakkaat doonte ne wax naa la nag la ëpp ci borom xam-xam yi jumhurul ulama dañ ne maadaama da nga koo jënd yaa ko moom jublu jaay da nga caa war a génne zakat loolu nag ixtilaaf la ci borom mazahib yi loo xam ne parce que lu mel ne mazhab malik ñun dañoo gis ne lii jurul dara da sa xaalis la jënd nga ko denc ko jurulu la dara ñeneen ñi ñoom jàppit ne sa xaalis la naam waaye yaa ko denc mi ngi mel ne xaalis ba nga denc ca banque ba wala ba nga denc ca coffre ba al muhim loolu ixtilaaf la bu am seen diggante والله سبحانه وتعالى أعلم نعم بسم الله نعم سوديني من سودي waaw xam naa yéegseguñ ci kër location kër location amul amul amul zakat bu cay génne lu dul ni la nga ca luy la nga jot ca location ba moom nga jël denc ko ren ba déwén waaye bu dee ne jëmmi la ngay fayee ko ci location bi rek loolu moom zakkar waru ca mi ngi noonu jazakallahu xeyran donte ne ni toujours insha allah yaakaar naa mën nañ dem ci beneen bind bi bu dee waaw bismillah waaw.
waaw dama bëggoon la leeru rek bu fekkee ne salarié salarié boo xam ne dañ am ci mois de octobre 2018 mu amoon montant boo xam ne salaire chaque mois mu am lu mu ci yokk di ci yokk ba mu dernier mois bi mois de septembre encore mu amaat loo xam ne que suy génnee lépp lu mu am lay génne wala dafay jël comme ni nga ko wax ci machine bi ci valable ci xaalis bu dee ni la nga xam ne muy salarié loolee xaalisam toppul cosaanam masalan tey buñ ne woon ko am trois cent cinquante mille yow yaa war a génne zakat masalan salarié bi denc na la nga xam ne mooy trois cent cinquante mille ñu dem ba ba ba déwén entre temps fayeeku na ay weeri weeri weer weer yooyu mu fayeeku buy génne zakat loolee islam du ko forcer ne ko dañ koy génneel zakat lu tax mooy loolu amagul ci moom at tant que amagul ci moom at zakat du ko war mu safaanoo commerçant bi nga xam ne moom trois cent cinquante mille yooyu ci la doon liggéey muy jur su boobaa moom bu koy génne zakat lépp lu mu jur da koy bëri mu génne zakat mais li nga xam ne da nga koo ñaq feneen donn ko feneen ñu may lu ko feneen loolu bokkul ak sa alal di cosaan da nga jëloon fokk loolu am at zakat doog caa war waaye nag dañu naan yow salarié bi su dee da ngaa bëgg a topp logique boobu da ngay dem bay génne douze zakat par at su ko defee lan moo la gën a noppal yow salarié mooy nga xool benn jour ci année bi yow yëg nga ne daal da nga am nisaabu zakat xooleel benn jour ci année bi su ñëwee lu nekk sax sa sa sa moomeel rek nga génne ko zakat noppalu ba déwén bu ko defee yow loolu moo gën ci faqiir yi ca moo la gën a noppal donte ne ne comme ni ma la ko waxee salaire bi nga fayee ko moom tant que deful ci yow at zakat waru ci mi nga noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam
képp koo xam ne bu doon maanaam sa poche woyof boo génnee asaka parce que affaire bi contexte bi ñu ko waxee boo génnee ren sànni baax bu génnee nga diggante sànni kon dañ ko war a génne
wa ala kulli xaal bon yaakaar naa ñi ñi fekke woon bi ñuy dal darsu zakat bi dañ ne zakat mi ngi firi annamaa wa tahara zakat day laabal alal ji ful alal ji ca joxe woon nañ ci ay misaal yu bari alal ji mën na bañ a yokk ci nombre waaye day yokk ci qualité loolu ñu joxe woon ci misaal ñaari gaay yi gi di liggéey kii di fayeeku cinq cent mille kii di fayee ko deux cent mille ca borom deux cent mille il est toujours à jour mi ngi ak soxnaam yor njabootam il n'a aucun problème borom cinq cent mille foo ko fekk mi ngi rang ca banque bi ay découvert lu waral loolu mooy seen ñaari am am yi yimul loolu nag la koy waral mbokk bokk na ci zakat zakat day tax li nga am ak as néew yàlla barkeel ko ba un million nga mën caa réaliser loo xam ne borom dix millions bu dul gën a zakat du ko man kon incha allah ñu jël beneen bind mu ne wa man lahu maalun tajibu fihi zaka koo xam ne am na alal zakat war ca wa alayhi daynun misluhu waaye am na bor bu tol ne zakat ba mu waroon a génne aw yanqusuhu an miqdar an an miqdar wala mu koy wàññi ca kem bañ war a génne zakat mi ngi noonu miqdaari maali zakat ca kem ba ñuy génne ci alalu zakat ku mel noonu fala zakata alayhi zakat du ko war illa an yakuna indahu mimma la yuzakka min urudin muqtanaat lu dul mu am beneen am am ca la nga xam ne kenn du ca génne zakat ca marchandise yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo aw raqiqin wala boog ay jaam aw xayawaanin muqtana wala boog ay jur goo xam ne dañ koy jëfandikoo jubloo ko jaay ko aw aqaarin aw rabin wala mu doon loo xam ne nii dafa nekk ci ay terrain wala boog ay parcelle yoo xam ne dañ ko limité ma fihi wafaun li dayn yii yépp bu dee ne am na ca lu mën a fay ay borom fal yuzakki ma bi yadihi min al maal kon na génn zakat la nekk ci loxoom ci alal fa in lam tafi uruduhu uruduhu bi dayni su dee ne marchandise ba mu yor mun ta fay borom xasba baqiyati daynihi xasaba dafay évaluer baqiyata daynihi fii ma bi yadi ca la nga xam ne mooy lesute bor ba ca la nekk ci loxoom ci xaalis fa in baqiya bada zalika ma fihi zakat su dee des na gannaaw loolu loo xam ne zakat war na ca zakaahu wala yusqitu dayni zakat waaw kon zakaahu dana ko génne zakat gannaaw ba nag mu ne wala yusqitu du rotal nag ak daynu lii di zakat lii di bor zakat xabbin wala tamrin wala machiya lii di zakatu pepp ak tàndarma ak ak jur waaw fii day indi benn masala masala bi mooy lan benn waay gi nii leb na un million masalan bi mu lebee un million day liggéey di liggéey di liggéey ba mu am at mu xool ah man kat un million dong laa yor te un million boobu dama ko yoral nit ku mel noonu dañ naan zakat wóoru ko cinq cent mille nga am say bor nekk na cinq cent mille ñu ne zakat wóoru ko allahuma lu dul moom la nga xam ne loolu la cay wax dañ ne loolu bi charte mooy yow masalan cinq cent mille yi rek nga yoro waaye bu dee am nga loo xam ne mën nga koo jaay fay cinq cent mille bor yooyee su boobaa cinq cent mille liquide bi nekk sa loxo da nga koo war a génne zakat mu indi ci beneen cas masalan waa ji am na boru cinq cent mille ca léegi moom gis nañu ne ah mi ngi cinq cent mille ci loxoom léegi am na marchandise yoo xam ne su ko jaayoon dina ma deux cent cinquante mille masalan mu daal di jaay marchandise mi muy mettre deux cent cinquante mille léegi mu daal di kay boole ak cinq cent mille yor muy sept cent cinquante mille bu ko évaluer su fayee cinq cent mille yi deux cent cinquante mille moo koy dese dañ naan kon zakat waru ko mais bu doonte ne ne am na loo xam ne nii bu ko jaayee masalan marchandise moom toll na ci trois cent cinquante mille mu am cinq cent mille liquide mu xam ne su ma jaayee marchandise bi trois cent cinquante mille boole ko ak sama cinq cent mille bi day nekk huit cent cinquante mille mën naa fay cinq cent mille ba pare dese lu ma war a génne zakat kon kooku dañ ñaan ko ne génne zakat ci gàttal daal moom loolu lay wax mooy bor kañ lay rotal zakat mooy fekk waa ji amul lu dul bor bi bu doon dal dix millions nga yor yoroo yor borob dix mille amoo lenn loo mën a jaay pour fay bor ba zakat waru la mais tant que am nga loo mën a jaay dugal ci bor bi dañ naan xoolal li nga dese ci xaalis buñ ko boolee la nga mën a jaay la des nga génn ko zakat loolu nag muy mazhab malik amma boo demoon tey lu mel ne mazhab shafi'i moom dañ naan bor du rotal zakat waa ji yaa ngi yor alal alal joojee di ci liggéey at mi jeex na fay génneel la nga xam ne mooy zakat bi ñoom loolu la ñuy wax ci wàllu googee almuhim ixtilaaf yi bu amee ci borom xam-xam yi yow da ngay seet bu dee ne la la doy ci mazhab malik wax doy na la la chaque waxi borom xam-xam la boo ko jëfee doo ci am benn problème am maa nag boo doon seet li ëpp tuyaaba mi ngi noonu comme ni ko suñ ngëm waxee léegi mooy nga génne zakat bi rek mu noppal la parce que bokk zakatu xaalis wax dëgg yàlla bariwut yàlla yombal na ko lool xoolal baykat bi coono bi muy daj ci toolam su paree borom bi danaan ko xaaj ko fukki xaaj benn xaaj bi nga jox ko miskin bi waaye xoolal yow mi yor xaalis sa borom danaan la xaaj ko quarante xaaj trente mille fii jëlal benn bi nga jox ko fuqaraaw yi wax dëgg yàlla sëñ bi lii moom su dee am na borom xam-xam yu naan war naag warul yow nga jublu ci jaamu yàlla un million vingt cinq mille nga ciy génne vingt cinq mille loolu kon mi ngi noonu dàqantewul nag ñu ne lool rek la war a def soo doyloo mazhab Maalik it jàpp ne bor bu la gàlloo ci sa kaw loos ci amoo lu dul lii zakkat waru la loolu yi amuñu leen luñ la cee wax mu des nag li ñuy tuddee baykat bi kii bay toolam moom kat bay na tool bi tool bi évalué nañ ko masalan bu ko jaayoon peut-être deux cent mille la ci mën a am wala mën na ci am cinq cent mille peut-être am nañ ci am ci tool bi cinq cent mille ala kulli xaal moom mi ngeeg boru cinq cent mille ndax dañ naan ko zakat teggeeku na la déedéet li ñuy tuddee alal ji nga xam ne zahira la dafa feeñ loolee dañ naan du rotal zakat baykat bi lu mu bari bari bari ay bor tool bi moom bu ko góobee day génne aqu miskin yi naka noonu borom jur gi yar jur lu mu bari bari ay bor heure bu at bi jeexee day génne aqu miskin yi loolu da ngay gis ci xikmal islam alali biir muy mone yi loolu yi nit ñi mënuñu koo xam tey jii ñi ci jàkka ji am na koo xam peut-être denc na un milliard kii denc cent mille kii million kii denc nangam mais mënuñu ko xam am maa nag jur gi moom ñëpp ci teg seen bët am déet bu ko defee yow mi yor ak jur suñ cam faqir bi muy taxaw na ndax xam naa léegi bu jënd zakat jox ma ci dara kee di góob ab toolam ña nga gaay taxaw na ah xam naa li mu góob tool bi ñu jot suñu wàll am maa nag boo góobee sa tool fa la ñu ne faqir yi xëy dafa am ay bor xam loolu tas yaakaar la loolu tax borom xam-xam yi ne lii di ak jur moom wala ak ak mbay moom loolu du la ay bor du tax mu teggi la zakat mu safaanoog alal ji nga xam ne dañ koy denc loolu lay waxit ba tey mu ne ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه زكاة دوار تبر بغل لبلي لدول دنكو فيكو وإن أقام أعواما من بديدا دفت كنك لبل أي أت فإنما يزكيه لآم واحد بعد قبضه نون لكي جن زكاة بن أت غنبم كجلي وكذلك الأرض حتى يبيئه loolu gannaaw ba ak marchandise ay ma ngi ci jumbu muhtatir mooy la nga xam ne da nga koo denc di xaar prime neex wa in kaana dayn bu dee ne nag bor ba awil ard wala la nga denc ngir prix bu marchandise ba min mirasin dafa jóge ci miras boo xam ne da nga koo don fal yastaqbil xawlan bima yaqbidu minhu su boobaa day jël at ba nga xamee ni nii moom lay commencé zakat ca la nga xamee ni nii moom la ko fayeeko fa mu ko fayeeko wa alal asaaxiri zakat dana warit xale yu ndaw yi ñu génn zakat fi amwaalihim ca seen alal ya mi ngi noon fii fi l ayni wal ars wal maachia wa zakat al fikr dana leen war ci seen alal ya na doon loolu alal ayni la muy mone yi or xaalis wal xars ak tool ya wal maachia ak jurga wa zakat al fitr ak zakat al fikr sànq mi nga la doon wax ci waa ji génne zakat waa ji génne zakat fekk daa amal ñum ñum yoral ay bor léegi nag mu ñëw ci kaa yow da ngay génne zakat waaye bi ngay génne zakat leble nga un million ci ay nit ndax un million boobu tey lay génne zakat ndax dama ko war a génneel zakat la mel ne ma sëb maali ñoom dañ ne déedéet zakat waru ca ndax un million bu juróolu la dara xam ngeen l'islam dafay xaramal riba nit ki di ka lebal ci teg dara day xaramal riba ñu ne comme génn na sa moomeel jëriñu la juróolu la loolu zakat waru ci kan la ciy war bis bu ñu la ko fayee même bu doon waa ji da ko téye cinq ans doog la ko fay benn zakat nga koy génneel loolu la mazhab malik wax loolu it la la waxoon ci kaw mooy marchandise bi nga xam ne da nga koo jël bloqué ko jaayoo ko tey di xaar fu mu neexee fa nga ko jaay nga génne zakat donte ne waxoon naa leen ci marchandise bi nii la ëpp ci borom xam-xam yi nanguwuñu loolu waaye problème bor bi it yeneen borom xam-xam yi juyoo nañ ci ak mazhab malik ñoom dañ ne déet bor ñaari bor la bor bi nga lebal ki nga xam ni soo demoon tey mu fay la muy muusil ak ka nga xam ni daa am jafe-jafe ñu ne bu dee ne bor la boo xam ni ki nga ko lebal soo demoon tey na ko sëñ bi delloo ma sama xaalis mu jox la ko ñu ne loolu moog li nga denc yem heure booy génn zakat da nga koy évaluer génne ko tey tey tey amma bu dee bor bi nag dafa nekk ci koo xam ne tey jii moom soo demoon du la fay ku mel noonu kon même bu fa defoon dix ans yi bis bu la fayee rek ngay génne zakat waaye zakat du ca war loolu kon la yeneen borom xam-xam yi wax teqale googu la ñu wax waaye bu dee mazhab malik ñoom dañ ne déedéet bor la daal comme bor la zakat wóoru ci si yëg joxuñu la ko suñ la ko joxee nag nga doog koy génneel benn zakat gannaaw ba lay wax ci alal joo xam ne da nga koo donn mi ngi noonu alal joo xam ne da nga koo donn su boobaa wala marchandise moo xam ne dañ la ko may loolee da ngay gis ne zakat du ca war lu dul nga nga jot ko waa ji bàyyam dafa dee bi mu dee ñu évaluer kër gi masalan cent millions la léegi nag ñi ngi jaay kër gi moom buñ ko joxee wàllam dix millions war na ko ca jot ndax kooku dañ naan ko comme sa bàyyi dee na dix millions yi sa saw alal la kon chaque année dañ koy génne zakat dañ naan déedéet fokk ñu jaay kër gi ba jox ko wàllam suñ ko joxee wàllam nag bu ko dencee ba déwén la ci zakat doog a war waaye temps boobu nga xam ne duggul ci loxoom loolee nekkul moomeelam loolu kon moom lay wax yastaqbilu xawlan bima yaqbadu minhu dafay commencé at bu bees ca lam ca jël su defee ci moom at mu doo ko génne zakat waaye dina fi mu ko jotee rek lay génne zakat wala di génne zakatu at yi ko passé lu mel noonu it lay wax ci xale xale dañ ko war a génneel zakat loolee da ngay gis ne li ëpp ci borom xam-xam yi loolu la ñu wax am na ci ñu néew a néew a néew ci yenn mazhab lu mel ne Abu Hanifa ñu jàpp ni zakat warul ak ci alali xale waaye nag la ëpp ci borom xam-xam bokk na ci mazhab Malik ak yeneen mazahib yi ñoom loolu dañ ne xale bi zakat war na ci alal ji ndax zakat ci alal ji la war mooy yeneen ci bàyyi islam doon doon wax mu en soo demee yemen ña fa woomle nañ xam ne am na àq bu yàlla bu fuqaraaw yi am ci seen alal jooje ña ca woomle nag dañu nekk mag ak ndaw ak yépp su ko defee ki nga xam ni moom moo yor alali yatim bi yeneen ci bàyyi islam daan wax naan man waliya yatiman lahu lahu maal fal yattajir lahu fiihi wala yatrukuhu xatta taakulu zakat aw taakuluhu sadaqat ki nga xam ne dafa yor alal di jirim na fexe alal joojee am lu ci juddoo ci alal ci wàllu commerce wala lu koy ñoŋal bu mu ko bàyyi ba zakat di ko lekk kon yow mi yor alal jirim da nga fexe war a fexe alal ju yokk wala nga dugal ko ci loo xam ne zakat du ca wax masalan kii bàyyam dee na bàyyi na ay millions soo demoon jënd ko tere tere moom zakat waru ci mais bu dee liquide bi nga denc chaque année da nga ko war a génneel zakat loolu mooy li ëpp ca la nga xam ne nii borom xam-xam yi wax nañ ko ci wàllu googee na doon nag alal joojee dafa nekk xaalis liquide la wala ay tool la wala lu mën a doon comme na nga xam ne noonu la ko waree zakatul fitri ñu war ko génneel mag ak ndaw ak yépp noonu it zakatu alal ci xale noonu it lañ ko war a génnee mi ngi noonu suñ jëlee beneen bind ba tey mu ne wala zakata ala abdi wala ala man fihi baqiyatu riq fi zalika kulli ab jaam zakat wóoru ko koo xam ni lenn ci moomil mi ngi ci yow ba tey zakat wóoru la mooy gore goo à cent pour cent fa ida uctiqa falya'tanib xawlan min yawmi idin bima yamliku min maalihi bis buñ ko goreelee nag na commencé tàmbali aw at ca bisu keroog yi ca la mu am ci alal wala zakata ala ahadin fi abdihi zakati du war kenn ci jàmbam am wa xaadimihi wala ay booyam wa farasihi ak ca la nga xam ne moom mooy ay far ay fasam wa daarihi ak këram wala ma yuttaxisu lil xiniya lil xiniya ak lépp loo xam ne dañ koo jël ngir di ko jëfandikoo min riba in na doon loolee ay terre la wala urud wala ay marchandise la wala fi ma yuttaxadu li li li libaas min al xali ak lépp loo xam ne dañ koy jël ci ab col ca la nga xam ne nii ay takkaay la mbokk kon fii day wax ne jaam zakar waru ko mais jaam bi nga xam ne mooy li islam tudde jaamu sharia ku mel noonu dañ koo moom alal ji sangam moo ko moom moo ko moom moom alalam kon lañ koy askanele zakat du war ci moom mi ngi noonu ndax alal jaa ngi tourné diggante moom ak sangam koo xam ne nii dafa am desatu jaam gu nekk ci moom loolu danay am tey masalan ñaari frère ngi nii bokk benn jaam kenn ki man ne góoral naa sama wàll kooku dañ naan des na ci moom am na lu gore ci moom am na lu gorewul ci moom wala boog ab sangam moo ne ko fexeel bala gi ne deux cent mille jox ma nga gore mu dem di liggéey di liggéey bu dugal cent mille kooku ba tey ak njaam des na ci moom kon la muy am alal di ko dajale loolu ba tey zakkat waru ci am maa nag bu dee ne goreel nañ ko su boobaa nag lam jot a am ci alal ba tey zakkat waru ci waaye na xool bu amee at nag bu commencé génn zakkat ki nga xam ne dafa am ay jaam ak jaam yi lu mu bëri bëri zakar waru ci même bu doon téeméeri jaam it zakar waru ci fas it boo amoon téeméeri fas zakar waru ci ay kër téeméeri kër zakar waru ci naka noonu lépp loo xam ni biñ koy jël jubluwoo ci jaay da nga koo jublu jëfandikoo ko loolee ab dund la loolee ay ay jur la loolee ay terrain la maadaama da nga ci jublu jëfandikoo ko jubluwoo ci jaay zakkar warul ci loolu lépp loo xam ni dañ koy jël di ko sol zakkar warul ci loolu zakkal warul ci takkaayu jigéen doonte ne foofu ixtilaaf am na ci borom xam-xam yi ndax jigéen bi yor or te suñu jigéen ñi dañ ci gis koo xam ni ay takkaayum ëpp na un kilo d'or ëpp na un kilo d'or da ngi noonu benn waaye ma nga ci laaxira nee na ma soxnaam li mu yor ci or ëpp na un kilo d'or te un kilo d'or mbokk la ñuy génnee ci or mooy quatre vingt cinq grammes quatre vingt cinq grammes d'or ku ko am war a génn zakka yow nga denc un kilo d'or xoolal loolu loolu nag dañuy gis ne borom xam-xam yi am nañu ixtilaaf ndax takkaayu jigéen zakkaar war na ceeb waru ci la ëpp ci ñoom dañ ne zakkaar waru ci te mooy mazam malik ak la ëpp ci ñoom dañ ne zakkaar waru ci am na ca ñoom ñu ne zakkaat war na ca ku nekk nag indi na say tegtal loo xam ni pour wax ko day xaw a jël temps bu bari allahuma bokk na lu ci digg doomu mooy su dee soxna si yéenéem mooy or bi mu jënd takkaay rek la ci jublu su boobaa dañ naan zakkaat warul ci loolu am maa nag bu dee da caa jublu denc ci alalam te lu bari ci jigéen ñi seen alal ci or lañ koy denc bi ñuy jë jëndi or bi du ne rek pour ñu takk ko waaye dañ koy denc seen alal pour ëllëg si biir bu ñu amee ay xew am ay kii dem jaay ko récupérer seen alal ngallaawaay bu dee ni da nga koo jublu denc sa alal moom fexeel at mu ne nga évaluer ñaata la daal di koy génneel zakat am maa ne bu dee takkaay kese nga ci génne loolu moom boo ci génneelu zakat it kenn du la yedd ndax mooy li ëpp ci li borom xam-xam yi wax mooy loolu buñ jëlaatee beneen bind mu ni wa man warisa ardan aw wuhiba lahu képp koo xam ne daa donn benn marchandise wala ñu may ko ko aw rafaa min ardihi zaran fa zakkaahu fala zakata alayhi fi cheyin min dalik wala boog am mbay mu jóge ci sa tool nga génne zakatu mbay ma la ca des moom zakat waru ca xatta yubaa wa yustaqbil bihi xawlan min yawmi yaqbilu samanahu day wax fii rek ne waa ji nga xam ne dañ koo mayoon ay marchandise masalan tey waa ji mi ngi jaay bitigam nga ñëw mu ne la may naa la bitig bi kañ la ci zakat bi war mooy soo dencee loolu pendant un an loolu mi ngi noonu bu doonte ne tool yi dañ cee jublu jaay ko it lañ ñore ca tool yi loolu yi moom zakat war na ci waaye jëmmi tool ba même boo ko jublu woon jaay ko même bu doon jum dañ ko jublu jaay ko mi ngi doog a dugg sa loxo fokk da nga ciy xaar ba mat un an nga doog koo mën a jaay nga nga doog koo mën a zakat doog la caa war mi ngi noonu amma bu dee dañuy jël bind bi ci topp mu ne wa fii ma yaxruju min al ma'din bokk na ci lay génne ci miin ya min zahab ci or aw fidda wala xaalis zakat kooku zakat war na ca ida balaga wasna ishrina dinara heure bu demee ba mat ñaar fukki dinaar ca mooy quatre-vingt-cinq grammes d'or aw xamsa awwaaqin fidda wala boog mu nekk juróomi awaaq ci fidda nga xam ne dana jege six cent dana mat six cent grammes ci xaalis fa fi zalika rub'ul ushr su boobaa da cay génne un quart ba mi ngi noonu da cay génne quartu dixième ba muy un quarantième yawma xurujihi bis ba mu génnee loolu wa kazalika fi ma yaxruju ba'da zalika muttasilan bihi wa in qalla gannaaw loolu it lépp loo xam ne génne na ko mu daal di taqaloo ak nisaab ba mu njëkk a génne ak lu néew néew fa in qataa su dee nag dafa dagg nayluhu mooy fa nga xam ne fa la ko doon roccee di ko ca génne muy pax moom doon génne mu dagg ko bi yadihi ci loxoom wabtada xayruhu mu dem sos beneen lam lam yuxruj shay'an du génne dara ci zakat hatta yabluga ma fihi zakat xanaa lu dul daa jot loo xam ne zakat war na ca wa tuqazul jizya des na jël jizya ba tey wala bala ñuy dem ñu leeral loolu bala muy gën a jaxasoos ci bopp yi day wax fii mbokk waa ji nekk ci miin yi tey boo demoon Sabodola ci Kédougou dañu gis ni ñuy nationalité yu bëri ñu nga fa di gas xeer yi pour génne or ki nga xam ne dafa gas génne or wala génne xaalis mboole mi borom xam-xam dëppoo nañ ci ni su gasee ba génne nisaab dafa war a génne zakat bi te it jour ba mu ko génnee ca lay génne zakat boobi mooy dal gis gas na ba am ne quatre-vingt-cinq grammes d'or dañ naan ko xaaj ko quarante parties benn bi nga génne ko zakat miinu xaalis la naka noonu loolu moom borom xam-xam yi dëppoon nañ ci ñu uuti nag ci yeneen yi ya nga xam ne nii jamaa yaag manganèse yaag fer yaag yooyu moom ixtilaaf am na ci waaye daal la nga xam ne borom xam-xam yëpp dëppoon nañ ca te loolu it mooy mazhab Malik mooy oor ak xaalis boo ko génnee dañ caa war a génne zakat mu ne nag bu dee pax bi nga gas di génne zakat am nga ci lu toll ni nisaab ba génne ca zakat ba ba mat nisaab leneen du tegu ci loolu dañ koy génne zakat boo ko bàyyee nag dem ci beneen pax zakat du la war lu dul da nga fay am loo xam ne mat na nisaab loolu lay wax ca wàllu googee nga xam ni moom mooy liy génn ci biir suuf alors mu des nag beneen ixtilaaf ci yeneen yi xatta ñu yóbbu ko ba ci pétrole gaz ak yu demee noonu da ngay gis lenn ci mazahib yi ca loolu nag lu néew la ñoom dañ ne suñu borom nee na wa mimma axrajna lakum min al ard liñ leen di génneel ci suuf kon lépp lu ñuy génn ci biir suuf muy jëriñ nit ki dañ caa war a génne zakat donte ne ne loolu fëri loolu lu néew la ci rawatina lu mel ne ay pétrole ak gaz dana néew ay nit dëkk génne lu ci bëri ay état ñoo koy génne te xam ngeen état moom zakat waru ko mi ngi noonu su dee ne gis nga fi nga tolloon ñu jàngaat mu ne wa tuuqazul jizya des na jël impôt jizya min rijaali ahli zimma al ahrar al baalixiin des na jël la nga xam ne mooy benn impôt bu ñuy gàll góoru ña nga xam ne dañoo fasanteeg ñoom ahlul zimma muy yahudi ak nasaraan ya ña cay gor ca majeur ca wala tuuqazu min nisaa'ihim kenn du ko jël ci seeni soxna wa sibyaanihim ak seeni doom seeni xale wa abidihim ak seeni jaam waaye wa tuuxasu encore min al majus wa min al nasara al arab des na ko jël ca majus ya ñuy jaamu ay safaraak biddiw ya di ka jëlit ca nasaraan yi nga xam ne ay arab lañu doonte ne fasante wuñu ak ñoom yenn kóllëre wal jizya ala ahli zimma arbaatu dinani dananir impôt ba ñuy teg ñi nga xam ne dañu fasanteeg ñoom kóllëre protéger leen ci biir l'islam ñu tudde leen ahlu zimma mooy année bu ne dañuy joxe ñeenti dinar wa ala ahli ahli waraq bu dee ñuy joxe xaalis arbauna dirhaman ñoom dañuy joxe ñeent fukki dërëm wa yuxafifu anil faqir dees na waye fal lim boobu bu dee faqir la wa yuqaz mimman tajara minhum min ufuqin ila ufuq ushru samani ma yabiunahu bu dee ne ñoom ahlu kitab yooyu day am ñu ci ñëw ci dëkk l'islam di def commerce dees na jël ci ñoom la nga xam ne moom mooy dixième la ñuy jaay ci marchandise wa in ixtalafu fi sana miraaran donte ne ñi ngi jaabante ci dëkk bi ci at bi ay yooni yoon wa in xamalu taama xaasatan ila makka wal madina su dee nag ñam la ñuy yóbbu jëme makka wala madina uxisa minhum nisful ushr su boobaa kon ah genn wàllu fukki la ñuy jël ci ñoom min samanihi ci seen prix ba wa yuqasu min tujaarul xarbiyin dees na jël nag ca commerçant yi nga xam ne ak noonoo dafa dox suñu diggante ñoom al ushru la nga xam ne mooy fukkeel ba illa an yanzilu ala aksari min zalik ba baa lu dul ne ñu wàcc leen ci lu ëpp loolu bu dee amir gis na loolu wa fi rikaz ka nga xam ne dafa for dencub maam ya muy rikaz wa huwa dafnul jahiliya ca mooy dencu ca jamono jahiliya ku mel noonu day génne alxumsu juróomeel ba lay génne ala ma asaabahu ca la nga xam ne jot na ko ca génne naam mbokk kon day wax fii rek kaa yoo xam ne moom problème état la moo di ne bu doon état bi dafa nekk état bi l'islam yal nañu dund ba réew mi nekk état bi l'islam waaw loolu ñu xam ni jurit bu nekk da koo war di ñaan yàlla subhanahu wa taala di ko bëgg fu mu mën a toll Sénégal dem ba diggal yàlla ba loi yi ñuy wax ci assemblée loi yi ñuy wax ci palais de justice loi yi ñuy wax ci présidence lañ cay wax mooy qaala allahu qaala rasulullah mi ngi noonu mu ne bu doon te ni nii état dafa nekk état l'islam ñi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bi nekk ay yahut ak chrétien état l'islam moo leen di garantir seen sécurité état l'islam moo leen di faj état l'islam moo leen di gàddul lu nekk te loolu mooy erreur boobu nga dégg waaw bu ñu defoon état islamique waa chrétien yi nag waaw di ñu ngi def état jahiliya ca julit ñi bëgg état l'islam ñu ngi dund ak ñoom bu ñu defoon état islamique chrétien yooyu dañu am aq boo xam ne islam di leen caa protégé allahuma nag julit ñi ñoom dañ leen di imposer ñu génn zakat amma bu dee chrétien yi ñoom dañ naan génn leen la nga xam ne mooy impôt bu ñu teg seen kaw muy ñeenti dinar loolee mën na évaluer selon amir nam ko gisee ñu war koo gàll ña nga xam ne duñu ay julit naka noonu it wàllu douane islam moo jëkk xalaat douane mi ngi noonu islam moo jëkk xalaat douane te loolu it ñu bàyyi ci xel bu baax mooy en organisation lépp lu jëm ci wàllu état da ngay gis ne occidentaux yi ñoo ngi ko copier ci l'islam loolu mi ngi noonu looloo tax islam moo jëkk xalaat douane depuis jamono Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu looloo tax mu ne bu dee ne chrétiens yi dañoo indi marchandise ci ci ci islam dañuy évaluer marchandise bi ah un million la ñu ne ko kon da ngay fay cent mille mi ngi noonu bu dee ne nag koo xam ne nii amuñoo moom jàmm su ñente wuñoo moom ay pacte loolee mënees na ko yokk bu amir gisee loolu allahuma lam ci génne mooy bu dee nii dafa dañoo jëm makka ak madina su boobaa dañ leen di waye falal loolu doonte ne yéeféer buñ daan jaay sa makka dañuy taxaw ci buntu makka waa makka génn jënd ci ñoom waaye ñoom amuñu droit dugg makka madina nag borom xam-xam ñu am nañ ci xilaaf loolu lay wax ci wàllu googee état islam moobu it du teg impôt jigéen gars yi suñu état yi jàpp ne ñoom ñoo progressé ndax jigéen buy liggéey dañ nga fay doo impôt ah kay état islamique daf teg impôt jigéen du teg impôt xale du teg impôt jaam du teg impôt faqir boo xam ne ni amul même màgget du ko teg impôt même bu dee waxu ko fii waaye màgget boo xesee ba màgget kenn dootu la teg impôt la nga xam ne nag moom la ci mujjee mooy waa ji doon dox ba gis benn denc denc boo xam ne wóor na ni ni kenn denc ko jamono ji lii bañ ko dencee yàgg na nga génn ko muy or liquide wala xaalis wala lu ñu mën a jëfandikoo ci wàllu ma ne su boobaa dañu naan dañ koy xaaj moom juróomi xaaj ndax lii moom dafa ci benn effort kon da nga koy xaaj juróomi xaaj jour ba nga ko génnee benn xaaj ba nga jox ko fuqaraa yi la ci des islam may na la ko donc kon lii mooy tënk suñu darsa tey incha allah ñu bàyyi bilal noddu wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wala kulli xaal xam nga suñu doxalinu duwaan yi moom loolu moom beneen mbir la mais l'islam moom lam tëraloon moo di ne ne ki jëli bit ah marchandise bitim réew loolee di ko indi ci réew mi su boobaa dañ naan ko da ngay fay àq parce que yaa ngi dugg ci réew mi te bi nga duggee ci réewum l'islam islam yor sa sécurité yaa ngi nar a dem jaay jullit ñi jël mer ma bénéfice bi buub yóbbuwaat sa réew kon da nga fi bàyyi dara dara boobee mooy dañuy évaluer marchandise mi jël 10 pour cent bi bàyyi na nga dugg jaay yow la nga xam ne moom nga bëgg a jaayee amma bu dee suñu état yi ci am nañ luñ lay imposer na li ngay fay la nga xam ne it dañ koo tëral ne lii moom kenn waru ko fee dugal su boobaa bu dee organisation la boo xamee ñu ni dañ koo teg ci ragal yàlla teg ko ci maandute jàpp ni lii buñ koy bàyyee day daaneel économie bi su boobaa jur ku ko xam waruloo ko def boo ko defee it gàllankoor yañ la cay teg loolu da ngay gis ne duñu mën a wax ne nekkul lu jaaru allahuma nag lii musiba bi musiba bi yéen ñëpp xam ngeen ko ma xam ko mooy suñu douane nag suñu gendarmerie rek suñu lu mu mën a doon loi yooyu bañ koy tëral saytuñu ci ngërëmal yàlla dañ koo tëral ci ñoom ci seeni xel looloo tax toujours day ànd ak fay yoo xam ne fokk ay lor da cay am foofu daal la mbir ba nekk wallahu subhanahu wa taala alam na
waaw ko nangu leen day def déclaré bu loolu waaw boo ñëwee ba ci poste bi ni lii laa am ñu fay ñu nga mais nag boo defee poste ba jàll ba ba ba jàll moom dañ koy nangu dañ lay teg sa amende waaw waaw loolu loolu mu wax ci fasalu ahli zikr ala kulli xaal mooy loolu ñu waxit ne waa ji jalgati ñëw nëbb marchandise am ne lii laa am fekk am na leneen jàpp naa ne bu doon te ne loi yu islam yi ñu wax sànq ku def loolee daan teg ci yow la nga xam ne waaw naam naam naam naam waaw waaw yooyu moom ay jalgati individuel la lu bokkul ak organisation mbir mi organisation bi nag na mu tëddee waa ji nga xam ne da koo jalgati individuellement la ñuy teg ci kawam loolu moom beneen mbir la wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam
bëri yoo xam ne dañ suñuy wax ñaata ngay am pour génne zakat ci xaalis différence bi dafay bëri trop xam nga fii ñu ngi jàppoo ay trois cent gis dégg naa sept cent et quelques dégg naa un million deux cent ci yoo xam ne ci dañ koy wax ci rajo télé bi ñëpp di dégg loolu loolu loolu la chaque année la chaque année xatta at yi passé yëpp képp ku dégg may wax wàllu zakat it loolu lay wax mooy ay un million cinq cent un million huit cent loolu lan moo ko waral mooy xaalis bi ñuy jëfandikoo nii amul woon jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam li amoon mooy or lañ daan jëfandikoo ak xaalis or boobu ak xaalis yi ñu daan génne zakat léegi nag lu bari ci borom xam-xam yu jëkk gis nañ ne suñ xaalis bi muy door la ko doon garantir ci banques yi ma li ñu tuddee des onces d'or mooy valeur bi bi daan wër yépp mooy valeur am en or la loolu nekk lu am muy benn deuxièmement biñ demee nag ba ci kanam borom xam-xam yi gis ñaari mbir mooy problème mu xaalis bi ñuy tourné léegi ay convention la ay bourse la ay déggoo la ngi mel ne rek suñu CFA bi ñu yor tubaab bi ñu xëy xëy ne hey léegi valeur am dootul cent franc mais cinquante franc la kon ñu ni lii lu ñuy jëfandikoo la muy remplacer or ak xaalis ca jamono yu nañ tubaab alayhi salaam dañu doon génnee xa zakat ci or di ko génne ci xaalis léegi kon ki nga xam ne am na valeur or 85 grammes d'or ñu ne ko génneel zakat waa ki am valeur 600 grammes ci xaalis nag comme moom xaalisu valeur rek la ci kii am na valeur boo xam ne mën na koo jël ci xaalis 600 grammes xaalis yi nga xam ne ci lay génne zakat ñu ne ko kon yow mi am valeur bi it kon da ngay génne zakat loolu muy benn deuxièmement mooy or dafa bari ay façon or yi 14 18 21 nangam nangam ak it na nga xam ne noonu lay wëlbatikoo ni muy gaawee ci xaalis moom xaalis rek la tudd xaalis moo gën a sax looloo tax borom xam-xam yi daal di mujj gis fatawa yu mujj yi borom xam-xam mag yi di def yépp dañoo mujj gis ne li ëpp njëriñ ci ñuy génn zakat mooy ñu base zakat bi ci xaalis lu tax ndax dana tax tey ki am 350 mille jàpp ne maa ngi jaamu yàlla ci génn zakat te xam nga ne zakat tant que jotoo nisaab sarax ngay yéene mais doo yéene zakat kon kooku dana am occasion yii ne maa ngi génne zakat mi benn deuxièmement it tey buñ ko basé woo ci or rek mën nañu wax ne peut-être un pour cent de la population ñuy génne zakat amma buñ ko wàccee ba ci nisaabu xaalis mën nañoo dem ba peut-être cinq pour cent de la population ñuy génne zakat loolu c'est des centaines de xaalis yoo xam ne dana jëriñ fuqaraaw yi loolu daal moo tax ba wax na leen benn daaw jik daje nañ fii ci juma 17 lenn ci ñi ñu tudd ay borom xam-xam fii daje fa ñu gëstu ci ab yendu mais lañ mujj gis moom mooy loolu mooy zakat bi nañuy wax ne képp ko am pouvoir d'achat mën a jënd 600 grammes ci xaalis bi ñuy tekk ci loxo foo mën a nekk Sénégal mu Amérique fu mu mën a doon xoolal valeur boobu ñaata lay toll nga génn ko zakat jour boobu biñ ko évaluer mi ngi tolloon ci trois cent vingt cinq mille loolu nag mën na yokk mën na wàññeeku loolu moo tax ñuy wax loolu wallahu alam naam naam maaleykum salaam wa rahmatullah boo xam ne am na extra moom si jàpp moom bagage moom am na ko da ngay commandé waaye moom dafay nekk rek dafa sant saa gerte bi mel noonu topp lu mat cinq ans yoo xam ne jaay loolu te ci bii même boo ko doon jaay prix ba mu ko jëndoon mënoo ko koo jaay da ngay perte ndax boobu bagage war nga koo mën a génnaat
waa ala kulli xaal jàpp naa ne moom lañ doon wax ci début mbir bi mooy ki nga xam ne jënd na denc ca ab dépôt bokkul ak li muy gaaral di ko jaay loolee da ngay gis ne bu dee ne lu mel ne mazhab Malik ñoom dañ naan maadaama lii moom ma nga ci dépôt ba amagoo occasion léegi pour di ko jaay bala ca zakata war day fekk da nga koo jaay loolu nag loolu seen gisin la bu ko defee yow bu dee ne noonu nga gis noonu nga ko waxee mooy mbir ma daal bokkul ak magasin bi nga gaaral nit ñi ku ñëw jënd xanaa ma nga ci dépôt ya nga denc su dee ci gisunu mazhab malik ñoom dañ naan bala nga koo génne zakat da nga koy jaay loolu nag bokkul ak gisunu yeneen borom xam-xam yi nga xam ne ñoom dañ ne maadaama yow bi nga koy jënd jaay nga ci jublu te itamit ne boo gisoon koo ko jaay jaay ko at bu nekk dañ koy évaluer ko génn ko zakat yii yépp ñaari gisin la boo xam ne bépp bu ci jullit jëfe kenn mënu koo yedd ndax gisunu borom xam-xam la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam def koy parti parti zakat bi nga génnee man nga koo jël kenn nit jox ko ko zakat bi nga génnee man nga wut téeméeri nit jox leen ko loolu moom lii problème bi mooy ndax ki nga koy jox yeyoo na ko am déet ñu ngi mel ne rek zakatul fitri man ngaa jël sa waa kër gépp seen zakatul fitri muy ñaar fukk ba jox ko benn miskin man nga jël benn zakatu benn nit séddale ko ay miskin sunu borom daal daal lim ay bunt nee na ñii la ñii la ñii la ñii la ñooñee ku ca bokk soo ko joxee sa zakat loolee moom da ngay gis ne wàccoo nga ak loola yàlla yàlla subhanahu wa taala sant mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam ada saat waaw waaw moom laa ko wax xam nga dafa am loo xam ne yaa ngi ko gaaral nit ñi nii di ko jaay am na loo xam ne da nga koo denc ca sa dépôt la tax nga denc ko fa mooy bu marchandise mii nekk ci bitig bi nga daal di dem nga jëli ko loolu lépp mooy la nga xam ne da nga koo denc di xaar occasion bépp marchandise booy denc di xaar occasion loolu la ñu tuddee muxtakir mooy la ñuy denc mooy gaaru luñ ko urud al ard mooy lu ñuy gaaral gaaraloo ko mais da nga koo denc di xaar occasion maadaama da nga koo denc di xaar occasion loolu laa ñu ne bu doon lu mel ne mazhab Malik dañ naan la tant que occasion boobu ñëwul ba nga jaay ko zakat du ca war a gum am ah waaw mais bu ala kulli xaal bépp marchandise boo xam ne day rouler loolee moom dañ koy génne zakat parce que loolu la ñuy tuddee mudir ak muxtakir ñaar yooyu rek a am mudir mooy lu ñuy rouler muxtakir mooy lu ñuy denc waaw ah waaw waaw denc waaw bàyyi ba nawet bi jege si ñi ngi soxla soxla jiw. mu mu mu mu génnee ko jaay. foofu dafay gerte bu seer. waaw mais ñi li ñuy wax day am loo xam ne day taq ci sa loxo. dencee ko pour xaar occasion rek dafay taq ci sa loxo.
waaw mais maadaama yaa ngi ko gaaral di ko jaay. ma maadaama yaa ngi koy jaay même bu taqee. waaw waaw waaw mais mais mais même bu taqee sa loxo it valeur la. maadaama jublu nga di ko jaay loolee valeur la boo xamee ne nii la gën a mucc ayib mooy nga génne ko zakat ndax valeur la boo xam ne dafay tourner bokk ci sa marchandise yi ngay jaay loolu mooy nit ndax xam nañ ni amul benn commerçant buy jaay magasin ba mu vide mu doog a indi chargé waat lii day dem di dikk lii day dem di dikk lii day dem di dikk maadaama dafa bokk ci li nga xam ne day tourner loolee da ngay gis ne dafay bokk kon ci li ñuy gaaral di ko jaay lépp loo gaaral di ko jaay nag ñaar moo moo ca mën a am mën nga caa gañe mën nga caa perte loolu mooy la nga xam ne mooy règle commerce da ngay gañe di perte su ko defee lépp loo xamee ne nii jàpp nga ne ne xëy na dem na ba taq say loxo yi bu dee dañ koy wanteer ñu wanteer ko waaye daal ñaar moo mën a am imma mu nekk lu ñuy muxtakir wala moo nekk mudir ñaar yooyu la ñu xam ci wàllu commerce luy rouler wala lu ñu denc tant que mi nga bokk ci liy rouler année bu nekk zakat da cay war su dee nag yaa ci jublu denc ko pour xaar su boobaa dañ naan zakat du ca war ci mazhab malik wallahu subhanahu wa taala alam comme dañuy leer rek li Assane doon wax léegi wax na dëgg da ngay soo xam ne danaan même sàkkaatu xaalis bi da yàq ñii trois cent cinquante mille ñeeni cinq cent mille donc ñaare li koy def mooy ki nekk Dakar li fi li fi xaalis di jar ka nekk New York xaalis mënul ko fa am loolu.
exact li kilo li kilo mango gën a yombee Dakar. nga la nga la gën a seere ci loolu lay doon léeg-léeg fii ne am na dëkk yoo xam ne boo fa demoon boo bëggee six cent grammes.
xaalis.
da nga ñàkk ma cinq cent mille.
exactement boo ñëwee Dakar mën nga ko am trois cent cinquante.
voilà voilà voilà kon kon loolu lay wax loolu lay leeral googu leeral gu ci am solo la mooy nañu xam ne zakat fixé wul benn prix zakatu monnaie bu dee or pur moom benn prix la benn fixe la quatre-vingt-cinq grammes xaalis pur six cent grammes mais bu dee xaalisu monnaie valeur la valeur nag day yéeg a ko wàcc ko xam ne xam marché or wala marché bii ni muy demee ni ngay dégg dollar beeg euro bi di yéeg a ko wàcc noonu la demee loolu moo tax muy am différence ci waxi borom xam-xam yi ci wàllu googee ci wàllu xaalis ba ak it différence bu rëy bi am entre ñiy waxee nisaabu or ak ñiy waxee nisaabu xaalis mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam yaakaar naa mbokk mënees naa doy la loolu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain